Ibra Naajo bu Subatel Ibra Naajo bu Parcelles Ibra Naajo bu Sénégal <laughs> même bu àdduna ndax àddunaa ko bëgg ndax xale bu mën a woy la mais Naajo nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay ah. ci loo ne. waaye sant Serigne Touba bu waaye sant suñu Bamba bu wér waaye. nga ñëw tey sa bisu grand frère gis ko muy ndam ndax yokkute la macha allah mu signé euh, gu mag gi. waaw moom moom moom moom suñu suñu père la suñu père suñu lépp la di woo di nemmeeku di conseil lii mu am nii mérite na ko dina am sax lu ëpp lii ndax xolam a rafet xam nga moo tax baaxam ak fam moo tax tey ji buñ bu liy xëy ñu bàyyi suñu te ñëw wuy ji ko ñu koy ñaanal tamit yàlla na ko jik yàlla may ko jàmm bàyyi ko fi ba si kanam. ana Ibra Naajo. Ibro Naajo gi mu ngi maa ngi si jàmm baax. fan yee ci ginnaaw bref rek déggoon nañ fi Ibro Naajo suba teel coow ci ay information nee nañ loolu amul mais comme nettali ci làmmiñu borom la dàqee loolu nu mu demee woon. waaw ñi ànd moom. lépp jàmm naa maa ngi suba ba léegi. yaa ngi suba ba waaw. nga ne Matar Diop sa grand la sa papa la. non moom loolu yàgg naa ko wax moom borom baax la moom xolam a rafet ñëpp ko bëgg moom kenn bañu ko ndax xolam a rafet. te dafa yéene ñëpp jàmm yee moo tax waaw nekk moom di liggéey moom daal. daf may fan si mën a xaar. nañ xaar léegi balaa tabaski ma mayal leen beneen. tabaski bii ma mayal leen tabaski jege na de. dama leen mayal beneen ah si kàttanu yàlla.